intérêt euh, de Foundiougne ak kile di Abdoulaye Diouf euh, teewal fi collectifu euh, de jàmbaar du golf ngeen gis nag boobu ba léegi ñoom ñu ngi daw di topp ci seeni indemnité di amal saa su ay plan d'action ñu daal di fas yéene waxtaane ci guerre du golf boobule ak tamit lan moo waral ba léegi ñoom munuñu jot seen xaalis wante tamit daañu waxtaane jafe-jafe yi nga xamante ni gox ba nekkee foofule ca Foundiougne ñu koy faral di jànkonteel ci bépp anam Abdoulaye Euh, Diouf léegi sax laa xam ne sama ñaari invité yëpp laa mu <laughs> def link bi que ñoom ñaar ñëpp juuf la ñu sant Abdoulaye Diouf ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm. ñu ngi lay euh, sant di la fay ci invitation bi euh, Ndeye Kumba Moro. Mm-hmm. Euh, di wax yàlla nañu yàlla dimbali ñu dugg ci waxtaan wi ci bismillahi rahmaani rahim te jeexal kook alhamdulilahi rabil alamin voilà mi ngi noonu Mayekor euh, Diouf euh, mm-hmm. ñu ngi lay jaajëfal yow mi fi teewal plateforme départementale pour la défense des intérêts de Foundiougne di la jaajëfal ci sa teewaay. merci Ndeye Comba ñu ngi lay féliciter la remercier bu baax ci invitation bi Euh, auditeurs yi nga xam ne ñu ngi toog di déglu mhm. euh, réew mi FM ci 97 point 5 mhm. di nuyu toute la population du département de Foundiougne mhm. di nuyu euh, la commune de Toubacouta di nuyu ñi nga xamante ñu ngi ci plateforme départementale pour la défense des intérêts du département de Foundiougne di nuyu ñëpp Euh, di ñaan di ñaan euh, <laughs> waxtaan bu ñu fi waxtaan. Mhm. Euh, mu nekk njëriñ askan bi yëpp. voilà mi ngi noonu ngeen mën ñu dégloo tamit ci suñu portail internet en direct fépp fu ngeen nekk rek ci àdduna bi ci www point rewmi point com www ngeen di def point rewmi point com fépp fu ngeen nekk ci senegal ci Afrique ak ci àdduna bi di ngeen ñu mën a déglu en direct Abdoulaye Diouf tey jii dinañ la laaj bala ñuy ñëw sax lan moo waral collectif de jàmbaar du golfe dañ lay laaj guerre du golfe ci boppam nga ñëwaat si ak ñun. waaw euh, <coughs> Ndeye Comba ñu ngi lay nuyuwaat di la sant bu baax ci laaj boobu. Mhm. guerre du golfe nag euh, bon je rappelle que man may secretaire général collectif de jàmbaar bi. du golfe mhm. donc euh, ñu yabal ma fi nag ma war ñëw teewe leen guerre du golfe li ko sooke woon. Mhm. diggante. Irak la woon ak euh, Iran Irak peut-être ci la commencé woon. Mm-hmm. yàlla dogal ñuy euh, Saddam Hussein di def guerre bi. Mm-hmm. mais xëy na seqoon na ak Koweït ay euh, mbir yoo xam ne kooku seen i mbiru bopp la. Mm-hmm. bi geeram boobu jeexee yàlla dogal mu xëy bés ni kowet nañ ko xam naa fay liñ ko amee yu demee noonu. et yàlla dogal xam naa ñoom aussi d'accord ñu ci kàddu. bi ñu d'accord lee ci kàddu. alors ci la Saddam ne ko nag comme yéen xamu leen ne yéen dëkk bi ngeen ne man samay maam ko moom. Mhm. dinaa leen wan ni kon samay maama ko moom. Mhm. moom daal ci histoire yu demee noonu. Mhm. Euh, si bon bonne mémoire noonu la commencé ba mu xëy nag jox leen ultimatum ne leen bës sàngam dinaa jóg dal seen kaw ngeen génn dëkk boobu ndax samay maam ko moom. et bi mu waajalee loolu. xëy na it euh, comme on di dit toujours les gendarmes du monde les américains. taxaw. seen taxawaay ne loolu daal du am ñun nag li ñu concerné Sénégal mooy euh, larabi saoudite ci mm-hmm. boppam moom moo contacté sunu président de la République bi fi nekkoon muy Abdou Diouf mm-hmm. et puis Abdou Diouf moom moo dans la précipitation defar euh, contingent bi mm-hmm. bi mu defaree contingent bi alors ñu yóbbu ñu fa c'était en 1990 euh, ngeen def lañ fa dem c'était le 17 septembre et le 18 septembre les deux vols ci la ñu demee Arabie Saoudite pour euh, défendre territoire u Arabie mhm. léegi nag naka la naka la mujjee bon am ngeen ca ndam amoo leen ca ndam guerre ba métti woon na méttiwul voilà waaw euh, métti mhm. woon na trop mhm. et am nañ ci ndam parce que bi ñu fa demee yàlla dogal na ñu ngi wàcc dëkk bu ñuy wax Daxran Daxran def nañ def ay préparatif u guerre bi lañ fa doon def bi ñu paree ci loolu ñu joxe ultimatum bi ne guerre bi day commencé. Mhm. alors ci la ñu yóbboo ci première ligne. ci mhm. safa dëkk bu ñuy wax Safaña. Mhm. amoon na benn complexe pétrolier bu fa nekkoon boo xam ne bii sa faisait un million huit cent mille barils par jour. donc ñun complexe pétrolier boobu lañ doon défendre. yàlla dogal ñu défendre ko. ba dans un premier temps pour wane ne guerre la ñu nekkoon parce que souvent dañuy dégg gars yi di comparer des choses yoo xam ne c'est pas comparable. parce que euh, guerre de la paix dafa wuute. ñun on était des casques saoudiens mais non pas des casques bleus. Mhm. yàlla dogal ñu défendre complexe pétrolier boobu. Mhm. en position défensive dans un premier temps parce que les missions ne sont par les mêmes entre guerre ak maintien. Mhm. on était en position défensive dans un premier temps sur ce complexe pétrolier là. yàlla dogal ñu koy défendre ba ñu war a dugg Koweït def position offensive bi ci la ñu duggee Koweït. daal def fa liggéey bu mucc ayib. donc liggéey boobu nag bi yàlla dogalee ñu def ko boobu ba tey ñu ngi topp di daw ci ay indemnités. Mhm. parce que nag ñi fa nekkoon mot nañ 34 pays. Mhm. et man dama da nga may jéggal ma dellu si tuuti en arrière parce que dafa am lu ma mhm. fàtte wax. waaw mooy parce que combat bi bi nga xam ne bi yàlla dafa dogal. ñu taxaw di ko di ko di ko di ko di ko waajal. au fait dañu demal sunu bopp. bon comme ñun ay militaire la ñu ay homme de tenue la ñu bu ñu demee seen bopp maanaam sunu bopp maanaam di fexe nu ñu jotee si suñuy ay indemnité mhm. mais après yàlla def ci ñun benn réflexion bu tax ñu dem vers Jamra mhm. Jamra nag euh, ku mel ni imaam euh, Massamba foog naa Diop la suma juumulee mhm. imaam Massamba Diop Mamatar Gueye ak Mamatar Gueye depuis lors nag ñun ñoo leen sollicité woon par écrit mhm. yàlla dogal Mame Matar Gueye bokk ak ñun combat bi parce que xam nga sénégalais yi aussi des fois mhm. dina ñu poser question sax lu tax Mame Matar Gueye dugg ci combat wu ay militaire mhm. mais ñun ñoo ko sollicité pour mu ànd ak ñun ci combat boobu yéen a dem sollicité ko waaw pour mu ñëw jàppale ñu ci combat parce que gisoon nañu muy dox ci réew mi lu baree bari ci ay Euh, jafe-jafe yu am ci sénégalais yi. Mhm. donc euh, ñun on est sénégalais. avant tout parce que Mamata si boo ko déggee danga naa est moom boo ko ca woon sax. xanaa moom daa demoon guerre ba mu ngi noonu donc moom ñun ñoo ko sollicité dugal ko ci combat bi. Mhm. bon bi yàlla dogalee nag je vais retourner fi ma nekkoon bi yàlla dogalee ñu défendre loolu. Mhm. Euh, ba dugg biir Koweït en position offensive def fa liggéey bu mucc ayib alors on a perdu quatre-vingt-treize têtes. xaw ma noonu mm, mm. mais daal euh, téeméeri nit yu manqué juróom-ñaari nit ñoo fa wàcc liggéey wàcc liggéey waaw ñëpp ay sénégalais ñëpp ay sénégalais la bon avion bi ñu nekkoon nag amoon na équipage boo xam ne bi ay saoudien la woon parce que avion bi avion saoudi la woon mm. Arabie saoudite donc euh, loolu rek wone na ni euh, avion même un passager boo xam ne bi day jaar à l'aéroport mm-hmm. su avion daanoo am na ay assurance ak yu demee noonu yoo xam ne dañu ko war a fay. mais boobu ba tey loolu yàlla dogal na amul. avion ba nag y avait vingt seize euh, éléments du du donc euh, quatre-vingt-treize ñoo ca wàcc liggéey. trois personnes yi ñu ngi fi. je peux les citer le y a un euh, soldat qui s'appelait Ibrahima Makalo. Mm-hmm. ak Ibrahima ak euh, Mamadou Biaye. Mm-hmm. et un nommé Sané. c'est les rescapés de l'avion ñoom ils sont toujours là. Mhm. mais des gens yoo xam ne tey boo leen gisee di nga xam ne ñii nekkatuñu ay. Mhm. am na lu manqué ci ñoom. Mhm. parce que xam nga avion bu daanu ñëpp dee yow deewuloo. après dina am très parce que kooku boo ko fi invité woon tey di nga gis lu bari ci moom loo xam ne di nga xam ne kii am na lu. manqué ci moom loo xam ne Sénégal moo ko amel. te fay ñu ko ba léegi. léegi yéen bala ñuy ñëw ci indemnité yi sax. ñaata euh, militaire sénégalais ñoo demoon ci guerre du golfe bi. voilà euh, militaire sénégalais yi demoon ci guerre du golfe bi quatre cent quatre vingt quinze lañu. Hmm. parmi les cent quatre vingt avant avion bi sax lu ko jiitu damay wax ni am na benn missile bu ñu dal boo xam ne bii euh, ça venait de l'Irak mu ñu dal vingt et un février. 91 hmm. si j'ai bonne mémoire hmm. ci la ñu missile bi dal ce jour la on a huit blessés graves am na ci koo xam ne kii léegi bi may dugg ci rédaction bi. Mm-hmm. maa ngi woo soxnaam. Mm-hmm. mais mu ngay nelaw donc quatre vingt ba léegi. Mm-hmm. mu ngi tudd euh, Abdou ñaan le sergent chef Abdou Niang. c'est quelqu'un boo xam ne bi boobu ba tey ay appareil ñoo nekk ci yaram yu woo yoo xam ne yi metti na ba jéggi dayoo parce que depuis quatre ba léegi quatre-vingt-dix léegi voilà jegeel micro bi voilà depuis quatre vingt ba léegi bu fekkee ne yàlla dafa dogal euh, nit di am ay heure yu muy nelaw ak heure yu muy yeewu ña ko war a traité sax nekkuñu Sénégal donc mm-hmm. appareil yi mu jóge woon arabi Saoudite ba tey moo nekk ci moom mm-hmm. kooku vraiment président de la République war na bàyyi xel ci loolu mm-hmm. parce que man damay wax faral di wax ni comme ni ko Sénégal yëpp di waxee <coughs> excuse comme ni ko Sénégal yëpp di waxee l'État c'est une continuité donc yàlla dogal na Abdou juuf la président Abdou Diouf moo fi nekkoon. bon avec tous ces euh, détails là nga xam ne yàlla dogal na mu amoon ci euh, boobu. yàlla dogal moom do moom réglé wu ko Abdoulaye Wade ñëw moom it ñu topp ko ci réglé wu ko Macky Sall le président Macky Sall ñëw ñu réglé ko ci ñu am yaakaar ci moom parce que moom aussi quoi qu'on puisse dire dafa ñu ubbiloon ay buntam par ses ministres. Mm -hmm. bon on a été par le ministre de de des des des des forces armées. Mm-hmm. donc dama jàpp ni bu la ministre des forces armées recevoir parce que neex na président de la république ba. Mm-hmm. parce que bu ko neexul du la recevoir. Mm-hmm. donc euh, parce que le président de la république c'est le chef suprême des armées. donc bu ñu koy euh, interpeller ci dossier bi dañuy bëgg moom it mu mu mu wuyuñu. Mm-hmm. parce que jàpp nañu ne yàgg na ñu koy ñu leen di interpeller ci dossier bi mais moom daal yàlla dogal na ak sunu facilitateur quand muy Mame Matar Gueye nañu keroog man ak moom ñoo ànd. muy la muy Augustin Tine mm-hmm. à deux reprises bi bi mu fa jógee Mame Matar Gueye ci boppam a été reçu par maître Oumar Youm au niveau de la présidence yàlla dogal mu jóge fa le premier ministre l'ancien premier ministre Boun Abdallah Dionne woo ko moom it euh, ñu am séance de travail séance de travail boobu yàlla dafa dogal mm-hmm. séance de travail boobu yàlla dafa dogal mu mujjee répété wu alors bi mu répété woo dem na quatre séances. Mhm. yoo xam ne def nañ ko am nañ ko am na la dernière séance de liggéey nañ ci dossier bi ba une heure du matin Mame Matar Gueye ak premier ministre bon parce que dañu mujjee créer. Mhm. benn commission. Mhm. boo xam ne bii kooku xam naa ne ci euh, euh, ordre président de la république lay doon. parce que la commission a été dirigée par le général Amadou Anta Gueye. et le colonel Abdoulaye Ndiaye de la DIRPA. ak Euh, un commissaire de police boo xam ne bi def na maintien de la paix je pense que c'est commissaire Diakhaté ou comme ça j'ai oublié le nom ak Mame ñoom ñoo euh, seqoon commission boobu mhm. liggéey nañ ci nag ba liggéey ba yemb ñu jël dossier ba jox ko premier ministre premier ministre jël dossier ba jox ko président Macky Sall. Mhm. boobu ba léegi nag ñu ngi toog di xaar mais kon fii ci euh, réew mi FM. Mhm. dañuy inter interpeller waat le président de la république moom mi nga xam ne c' est le président de tous les sénégalais et c' est le chef suprême des armées di ko wax ni ko ñun de niñ koy waxee toujours ñaanuñu saraxawuñu sunu ay indemnité de guerre la ñuy demander te bu ñu sañoon moom mu dox ci amul bunt bu ñu fëgul nag pour jot ci sunu ay indemnité récemment dinaa cité sax benn waay boo xam ne xëy na bokk ci mais moom il est de bonne foi parce que dafay liggéey ak ñoom. Mhm. benn waay bu ñuy wax Namori. donc kooku gis nañu sax ba wax ak ñun nañu voilà président il de bonne foi ak yooyu te ñun xam nañ ne président il est de bonne foi. Mhm. parce que bu fekkee ne yàlla dafa dogal mu mu ay ministres recevoir ñu premier ministre mhm. jàpp nañu ne eh kii kat. bu yàggee xëy na dina gëstu euh, les les les jàmbaar. dina leen bàyyi xel daal dina dina dina réagir. waaw waaw parce que parce que mm. boo xoolee li ma doon wax sànq mooy kii euh, euh, le blessés. Mm-hmm. yaa Ibrahima Makolo Mamadou Biaye ak Abdou Niang ak huit blessés graves yoo xam ne yi ak Sagne Sané ça mm-hmm. c'est ça c'est les c'est l'avion. Mm-hmm. Mamadou Biaye Mamadou Makolo ak Sané ñooñu ñoo nekk ci avion bi. Abdou ñaa nag moom missile bi moo ko daloon. Mhm. mu ànd ak ay huit blessés graves yoo xam ne ba tey. Mhm. Euh, ñu ngi fi te boo seetloo ban fa jógee tey rek ñàkkaat nañu quatre vingt onze. Mhm. personnes ou quatre vingt quinze. yoo xam ne wàcc nañ ci liggéey. bokkul ak nag quatre vingt yi lañ xam ne moo wàccoon liggéey ci. ca ca ci avion bi waaw. donc ñoo ñëpp ñu war a indemniser seeni i famille. famille tout ça xam nga loolu soxna voilà loolu metti na. loolu metti na. ñun ñii ñëpp tey bu ñu sañoon ñu jot suñuy indemnité parce que lu ñuy dund ñun rek ñoo ko xam. xaalis bi li ngeen di laaj état. Euh, bon ñu dem jàll ci may. voilà d'accord donc hmm. xaalis bi. Euh, ñun mënuñu xayma lu dul li nga xam ne lii moom lañ ñu jox. parce que xam nga yàlla dafa dogal état ak état. Hmm. ñoom ñooy séq. Euh, ñoom ñooy seq. Euh, mais ñaata lañ leen joxagum. un million de francs lañ joxe. un million par par par par rescapé. de par rescapé mhm. les les morts ñu jox leen un million quarante deux mille. Mhm. donc dama yaakaar ne quarante deux mille jarul bakkenu soldat. Mhm. quarante deux mille soldat boo xam ne bi dafay sol tenue di ñefe di daw ñi nekkal nit ñi ci naaj bi nit ñi nekk ci kër gi million ñi faatu un million quarante deux mille jot a lañ jot a léegi yéen la li ngeen di laaj kon fu ngeen ko teg loolu loolu prime congé la congé la loolu prime congé parce que xam nga voilà li des ñu koy laaj ñun mënuñu ko sax xayma parce que état état ñoom ñooy mais mais à officiellement peut-être parce que xam nga xam xam nga si si toutefois que su su fekkee ne Arabie Saoudite dañu versé cinq cent millions de rials mhm. on était au nombre de mhm. on suppose que ñii kat de rials par tête lañ joxe kooku sama analyse la. Mhm. donc un de riyals à cette époque là ça faisait un euh, ça soixante dix millions francs CFA. Mhm. c' avant la dévaluation. donc loolu rek doy na. junj doy na borom xel. Ah, am nañu ay cinquante milliards yu kenn xamul. bon cinquante yegg na foofu xam nga cinquante milliards yooyu bu fekkee ni dañ dañ ko wax. Mhm. xëy na ñoom ils ont dit ça par rapport ak Rial bi. parce que Rial moo ëpp doole ñaari junni yoon franc CFA. parce que ñoom xamu Arabie Saoudite xamuñu sax franc CFA. ñoom bu ñu ñëwee fii ñu ñuy wax naan franc CFA lañ leen fay di ñu jox un million kooku ay naxaate lañ te naxuñu kenn ban dama jàpp ne seen bopp la ñuy nax mm-hmm. te doomu aadama war parce que naa la wax nag ñi seqoon dossier bi mm-hmm. je précise ici que ni ñu ngi ñu ngi ñu ngi dem àllaaxira benn par benn vous m'excusez du terme parce que ñun mm-hmm. ñëppay dee waaye nag am na ñoo xam ne ñi Medoune Fall anamu ana Ousmane Tanor ana Djibo Ka ana il faut que ñu delloo si xel yi il faut que nos autorités quand delloo si xel yi xam ne fii xel mi ñu yor la la ñeneen ñu yor xëy na kay dañ dul mën a xeex ak ñoom pourquoi parce que ñoom ñoo euh, détenir la force mm-hmm. waaye nag nañu xam ne yàlla kenn rek la te te te dee day am mm-hmm. loolu moom fokk ñu bàyyi ci xel moo tax ñuy interpeller président de la république mm-hmm. di ko wax nekkoon na delloo si xelam euh, mieux vaut tard que jamais waaw noonu daal laa ko mën a waxee parce que nit ki aussi il faut que ñu xool li nga xam ne li mooy injustice bi fi amoon ñu jéem ko réparer ca na mu gën rafete voilà euh, ah. Abdoulaye Diouf kon euh, ñu ñëw ci kii di Mare euh, Mayekor euh, Diouf euh, bokk ci plateforme pour la defence des intérêts de Foundiougne bokk tamit ci COJER bu Toubacouta tey jii ngeen tëral ab plateforme lan moo waral plateforme le pour la défense des intérêts de, de Foundiougne voilà. merci Ndeye Koumba mhm. Euh, je pense que question boobu c'est une excellente question. Mm parce que lu juddu rek am na lu waral mu juddu. Mhm. Euh, li tax ñu créer la plateforme départementale pour la défense des intérêts de Foundiougne. Mm -hmm. grande mouvance présidentielle. parce que dañoo xool ne politique de. <laughs> Mhm. dañ koy assumer. Mhm. parce que ñun depuis 2008. depuis 2008. Mm -hmm. beaucoup de jeunes dañoo bàyyoon li ñu doon def yëpp. ànd ak euh, le président Macky Sall. Mhm. Euh, activité yu mu doon def yëpp ñu ànd ak moom ci loolu. Mhm. bàyyi seen soxla yëpp ànd ak moom ci loolu. élection yi président participé yëpp ñu ci seen tànk tube. Mhm. ñëw 2012. Euh, gagné département Foundiougne amul dara. ñu ne ah deuxième mandat nañu fexe encore ñu joxaat ko véritablement les suffrages des Sénégalais. surtout dans le département. Ah, de yéen ngeen fal ko premier kii deful dara deuxième tour ngeen. fa euh, deuxième euh, ngeen mën tout à fait on l'a ah, parce que li tax ñu def ko ñu ngi ñëw. waaw li tax ñu def ko. Hmm. parce que dañu amoon espoir ci moom. Ah. parce que euh, sept nga toog. président deful dara nga ñëwaat nga jox ko mandat wu juróomi at. d'accord nañ ci loolu. waaw mais comme président. il est il est aujourd'hui il est né hmm. à Fatick. Hmm. Il est né dans la région de Fatick. Mmh. Le département de Foundiougne fait partie des trois départements que compose la région de Fatick. Mmh. Donc ñun aussi c'est c'était à notre à véritablement sens ñu góorgóorlu jàppale ko ci am espoir ci moom. Mm. mu am également. te yéen jàppalewu leen. dëgg la moo tax egsi nañu. Mm-hmm. ñu am également. Mm-hmm. ay projets yoo xam ne moom wax na ko pour le département de Foundiougne. ay projets yu bëri euh, mën naa ci citer tey. Mm-hmm. Euh, le campus de Toubacouta. mooy euh, université Mm-hmm. Toubacouta def ci am campus. Mm-hmm. Euh, mën nañ ci lim également le le le domaine agricole communautaire du Ñombaato mun nañ ci lim le port de Foundiougne. Mm-hmm. le port de Foundiougne tabax na ko inauguré ko depuis quinze mais ba léegi ubbiwuñu ko. amul njëriñ amul njëriñ. ba léegi daal ba léegi dara nekku fa. Mm-hmm. c'est une coquille vide. Mm-hmm. donc yooyu port de Foundiougne lan moo ko taxoon jóg exactement. non port de Foundiougne dañ ko waroon dañ euh, ça devait être le deuxième port du Sénégal. Mm-hmm. parce que foofu. véritablement suñu dragué woon normalement euh, géej gi. je pense que bateau yu bëri mënoon na ñëw di di au niveau de Foundiougne te emploi des jeunes def fay am njëriñ. donc c'était des projets yoo xam ne c'est vrai il a fait il a fait. Euh, euh, un pont mm -hmm. à Founioune. Mm -hmm. il faut le reconnaître. Mhm. il a a fait également des projets d'eau mhm. donc am na les îles du Saloum ñu bëri am nañu ndox léegi. Mhm. c'est grâce au président de la République. il faut le reconnaître. mais li tax li tax véritablement jeunes di xeex mooy ñu am xëy. ñu am xëy. parce que tamit mënoo à chaque fois. élection tey jii yéen yéen lan moo leen soxal ba ngeen tëral plateforme da gis ni Foundiougne daal. suqalikuwul. non gis nga ñun on a fait dañu fàtte fu njuñ waaw. ci yan côté exactement li ma lay wax moo moo mhm. mhm. de Foundiougne de 2008 mhm. commune par commune nous sommes 17 collectivités locales. ngeen commencé non parce que président Macky Sall lañ doon àndal. moom lañ moo tax yéen ngeen commencé moom moo tax ñu commencé moom lañ àndal. lépp lu ñu am tey ci moom lañ ko waroon amee. tey. moom mais moom ba mu ñëwee Foundiougne lu mu leen waxoon. non bu mu ñëwee. avant muy def ñu wax ñu jàppale ko parce que il doit véritablement changer l'image du département de Foundiougne. Mhm. loolu la war loolu loolu la ñu promettroon mais jusqu'à aujourd'hui véritablement commune par commune soo xoolee la capitale. Mhm. Euh, départementale muy Foundiougne commune tey. stade municipal sax mënu ko am. ndox. ndox pour naan eau potable am na amu fa. problème bu rëy. les populations de Foundiougne ont marché ont marché. non ay pratiquement ay citernes. ils sont en train des voies et moyens mais fu mu nekk nii ci situation bu délicate la ñu nekk. ndox sax mënu fa am mukk mm-hmm. voirie publique ah. lycée lycée moderne. ah fu mu nekk nii il nous faut ça il nous faut véritablement que le président de la république. ah xalaat le département de Foundiougne. à chaque fois ñun ñooy arroser euh, l'électorat de la région de Fatick. fu mu nekk nii nag trop c'est trop. moo tax véritablement les jeunes cadres les jeunes politiques. ah tout le monde. Mhm. issu de la coali de la grande majorité présidentielle laa la wax ne. Mhm. ñu toog waxtaan xool véritablement ne il faut le président que le président de la République pense au au département. Touba soo ñëwee commune Toubacouta tey. Euh, am na tali xam ne douze kilomètres kese la. Missira su dee su dee su dee dégg euh, produit halieutique pratiquement foofu lay génne parce que y les îles Bettenty Bosinkan lu ñuy générer ci ay produits halieutiques kenn xamul nu mu toll donc te ci tali boobu la ñu war a jaar donc tali boobu voie économique bu rëy la mhm. douze kilomètres ba léegi mënuñu ko tali mhm. ñaata at ba léegi ba tey rang-rang bu baax sax amu fa mhm. su tawee c'est la la route est impraticable ah nga ñëw également Nioro Alassane Tall Saloum Diané Toubacouta c'est trois communes benn tali bu leen lié ba léegi dara amul ah euh, le domaine agricole communautaire que je disais tout à l'heure Euh, euh, semaine passée dégg nañ le coordonnateur Pape Malick Ndour ñu def euh, un un un CRD spécial. jëfee mm. ko Fatick parce que ñun peut-être c'est dû à ñun suñu suñu coow li. Mm. mais ñun aussi loolu taxuñoo taxuñoo toog. Mm-hmm. parce que def brouhaha pour pour pour taxaw loolu taxuñoo toog. il mm. faut que ñu implanter le domaine agricole communautaire du Niombato. à Toubacouta ils ont délibéré. pour que ñu dem ñu def ñu defar ko pour que jeunes yi am fu ñuy xëy. am fu ñuy xëy loolu moom jaral nañu suñu bakkan. Mm-hmm. du ñu ko bàyyee kenn il faut que ça soit amuñ xëy. non mhm. amuñu xëy. parce que su ma la joxee benn exemple mhm, mhm. la coordonnatrice du maire départemental mu ngi chômé. les étudiants APR. laa la wax de. c'est vrai que que l'emploi n'est pas seulement réservé aux gens de l'APR non mais nag <laughs> am na loo xam ne c'est le minimum qu'on qu'on doit qu'on doit pouvoir faire pour les jeunes donc. pour te dire le campus de Toubacouta tey. Euh, tey ñun bu ñu amee bac dañoo ñëw université Dakar. par am na ñoo xam ne amuñu fi amuñu amuñu ñu daal amuñu parent am fii à Dakar dañuy souffrir fii donc tey suñu defaroon le campus de Toubacouta ku am bac Toubacouta sa kër ngay xëyee dem jàngi su nekkee ndumbuñ ngay jógee wala Tabanding wala Dagabaabu nga xëyee foofu passe sa 100 ñëw jàng école wàccaat passe sa 100 francs dem ñibbi sa kër loolu dara gën koo neex mhm. il y également de l'emploi dina am emploi ci ci bi donc loolu aussi c'est la grande question qu'on se pose donc loolu aussi il faut que le président de la République taxaw ci loolu électrification hmm. il beaucoup de villages dans les dans les différentes communes yoo xam ne amul sax électrification la commune de Niassène hmm. pour donner l'exemple de la commune de Niassène c'est la commune boo xam ne amul benn amul benn village laa wax bu am courant une commune entière le président de la République dafa war a taxaw ci loolu dafa war taxaw ci loolu eau potable également il euh, ma jëlee l'exemple de Toubacouta aujourd'hui à part Euh, le forage de Toubacouta mhm. yeneen forage yi nekk ci zone ba yëpp mhm. groupe électrogène moo koy doxal groupe yi su population bi dañuy nekk ci qui vive mhm. donc loolu yëpp c'est des solutions yoo xam président def war a taxaw Bettenty Bettenty foog naa vous vous rappelez de naufrage bi voilà effectivement donc foofu le président mu ñëwee ah, il avait promis de de de faire de commune jusqu'à présent les populations de Bettenty ñu ngi jooy di xeex ci loolu ba ñoo Niodior également. Mhm. la commune de Niodior dans les, euh, le village de Niodior dans les îles du Saloum doit être érigé en commune jusqu'à présent rien donc euh, c'est pour vous dire que ñun lu ñuy xeex. maanaam euh, ci côté yëpp daal ça ne va pas. non rien ne va à Foundiougne il faut le dire. Mhm. rien ne va à Foundiougne. mais mais yéen lan moo tax mal rien ne va maanaam benn secteur doxul. Mhm. mais kenn déggu leen ngeen yëngu-yëngal. non yëngu def manifestation dem taxaw bunt palais pour président dégg leen sax. non ah bàyyi leen xel d' accord euh, ñun soo déggee ñu ne yëngu-yëngul defuñu yëngu-yëngal waaw def nañu hmm. euh, def nañ yëngu-yëngal on a fait des des points de presse on a fait waaw non non non j'arrive j'arrive des conférences de presse ñëw toog fii wax journaliste yi ñëw loolu yëngu-yëngu d'accord doyul doyul hmm. mais ñun euh, yëngu-yëngu ñu def noonu hmm. moo ñu waraloon ba le cabinet politique du président recevoir ni yan yëngu-yëngal fu ngeen yëngu-yëngal. ah soo laajtee soo laajtee sa confrère il a été a été à la conférence de presse. xam nañu non man waxuma conférence de presse. yan yëngu-yëngal ñun incha allah. incha allah. def euh, comme Guy Marius Sagna ni mu def def tam buntu palais. non ñun aussi am na loo xam ne. Ah. Euh, nous sommes de républicains. mais palais bi ñëpp a ko bokk. non mais palais bi def tabaxuñ ko pour ngay ñëw jàpp ci ay gris. non mais pour ah, ne pour président dégg la dans un. ñii ñu ngi yuuxu pendant des années. waaw dama ne su nekkee ne bi ah, yi moom boo fa demee message bi. je dis que le pays est en danger loolu moom su fekkee ne pour

place. Hmm. mais pour vous dire. wala nga bëgg ñu oolo la la. non du la mais yow maye ko sa coow li bari na. jox la benn poste nga noppi. <laughs> du man maay coow. waaw coow bi du man maay coow. waaw c'est voilà c'est tout un noyau c'est une population qui qui qui est irritée. non mais gis nañ ñuy coow pour euh, tout un toute une population wala kii mais parfois bu ñu leen wooyee jox leen poste ñu ne tekk. non mais loolu porter le combat. non non non non loolu moom c'est pas à Foundiougne. loolu taxul nga yëngu-yëngal non loolu taxul ñu yëngu-yëngal c'est pas bu bu bu personnaliser le débat. parce que débat kii combat bi. c'est un combat commun. Mm-hmm. bi nga xam ne ay jeunes ay jeunes cadres ay jeunes leaders ñoo ko mm-hmm. bokk. Mm-hmm. donc c'est pas man dama bëgg sax nga génn ci parti bi nga bokk maanaam ngeen wax. en tant que sénégalais parce que parti bi dañ ciy génn. Hmm. ce n'est pas important. Hmm. lan ngeen fas yéenee def pour président xam jafe-jafe yi nga xam ne waa fu ñu ñu ngi koy jànkoonte. fu mu nekk nii déjà plateforme bi. Hmm. le président l'a déjà reçu. avec la demande d'audience. wóor na jot na ko jot na ko ba biir na ko non jot na ko ba imputé ko ba ñu recevoir ñu loolu kay wax naa la ko mhm. mais loolu ñun loolu taxul ñu taxul ci lu ñu nekk ba mu leen recevoir lu mu leen wax non c'est pas le président en personne qui nous a reçu c'est son cabinet politique qui nous a reçu bu ñu recevoir également ay promesses euh, pour diligenter euh, ces problèmes là lañ wax. Mhm. fu mu nekk nii ñun aussi nous sommes à l'attente. Mhm. mais terewuñu. suñu suñu suñu activité dañ koy continuer mm-hmm. parce que lii suñ ko continuer wul aussi c'est le département qui en perd mm-hmm. ñun nag duñu fi nekk véritablement population bi jeunesse bi am ci ñun yaakaar ba pare ñun ñuy toog di déglu ñoo xam ne vraiment ay promesses kese voilà sànq laal nga côté bu am solo nee nga mm-hmm. euh, pratiquement jeunesse su Foundiougne wala Toubacouta ainsi de suite amuñ xëy mais man damay wax euh, pratiquement jeunesse su sénégalaise bi yëpp amuñ xëy euh, ak te du ñu gis euh, souvent njiitu réew mi ngi wax de insister ci politique de l'emploi mm. euh, ay projet wax nañ fa ay financement mm-hmm. ay DER ainsi de suite naka gisee loolu tamit DER boobu ah, jeunes yu bëri gisuñ ci seen bopp ba léegi sax yaa ngi gis euh, immigration clandestine bi mu ngi gën a bari Barça wala Barsaq bi mi ngi bari te loolu ci la bokk parce que ndaw yi nee nañ amuñ xëy lan nga ciy wax merci beaucoup mm. soo tuddee Barça wala Barsaq mm-hmm. ñun ñooy ñun ñooy ñun ñooy waa waa Barsax ñun. ah fu ñun. <laughs> soo dénombré le nombre de morts. Mhm. ah mhm. ñi am ci de de ci géej gi ci mhm. fu ñun mooy jël yi. loolu moom kenn mënu dindi. ndax la euh, ñoom ñëpp dañu désespéré. bi ba pirogue bi chaviré temps yële on a perdu plus de 15 morts. 15 jeunes. 15 jeunes. Oui. Mm -hmm. Ça, ils ont perdu 5. Mm -hmm. on a 1. boo xam ne ba léegi kenn xamul ndax dafa dafa décédé wala wala wala hmm. décédé wul donc ses parents ñu ngi ci problème bu dul jeex hmm. euh, euh, à Dionewar également donc c'est pour vous dire que ñun nous sommes en train de perdre nos jeunes DER bi DER man ànd naa ak le ministre ñu dem à à hmm. donc euh, bu ñu ñëw nous sommes allés à Toubacouta ñu def le lancement avec tout le tintamarre qui qui ñu utilisé mais rien le ministre euh, le, le délégué général yéen kon politique bi Macky Sall di mbubboo yéen gisoo leen ci seen bopp non gisuñu suñu bopp. loolu moom parce que moom loolu lay loolu ah, fëggee dënn ñu euh, moom kenn du fa affaire DER. Mhm. DER. waaw la délégation n'a rien fait à à à Foundiougne. Mhm. non non non. kon gis parce que am na parce que jeunes yi. Mhm. mënoo jël ñëpp dugal leen dans l' administration. ça ñun d' nañu ko. mais DER su jëloon les jeunes la financer leen euh, accompagner leen véritablement dinañ am ci lu ñu jàppal seen bopp. mais loolu malheureusement rien.

ci kenn ça moom oh, amul fenn fu ñu koy fu ñuy waxee le contraire. ayca mi ngi noonu ñu ñëw ci Abdoulaye Diouf euh, nekk secrétaire général bu collectif des jàmbaar du golfe euh, léegi euh, Abdoulaye Diouf yéen naka ngeen fas yéenee def bu weesoo seen point de presse yi Jamra mi ngi leen di jàppale c'est vrai vingt sept ans wala vingt huit ans après ba léegi yéen ngi laaj seen indemnité yéen tamit naka ngeen fas yéenee def yéen jàmbaar yi da ngeen di yëngu-yëngal da di dem buntu palais koy def. waaw euh, ndey pour pour pour président fay leen ñu fay leen seen xaalis état du Sénégal fay leen seen xaalis. waay waay d'accord ni ñuy def mooy euh, mm-hmm. continuer toujours euh, mm-hmm. continuer toujours xeex bi parce que xam nga dafa am loo xam ne lii dama ko fàtte wax sànq ci. Mm-hmm. bi ma lay expliquer. pour te dire que xam nga booy réclamer ay ay ay ay indemnité da dem. pas à pas. yàlla dogal na nag li ma fàtte wax sànq mooy euh, mooy euh, ñun fexe nañu ba ambassadeur u Arabie Saoudite recevoir ñu. yàggul mooy euh, ci c'était le quatorze passé. c'était le mardi su ma juumulee. donc wax nañoo moom moom it wax moom wax nañ ko ñun wax nañu. léegi nag li ci nekk mooy comme liggéey bi dafa am ku koy wéyal muy la président Mame Matar donc moom mu ngi demander toujours audience bi nga xam ne moom la war a am ak président. Mhm. pour wax ko li nga xam ne lii moom la ñu jëlee foofu. loolu nag xëy na euh, bu ma yóbboo ne bu ko waxee président xëy na président dina dina ko tontu. Mhm. léegi ñun ñu ngi xaar loolu. te it li nga xam ne li moom moo composé collectif bii ma jiite. Mhm. du ay militaires kese. y a les veuves. y a les orphelins et les orphelines. donc euh, te gis nga ñooñu seeni wayjur yu góor ñoo wàcc liggéey ci biir Arabie Saoudite mm-hmm. seen deret fa lañ ko bàyyi mm-hmm. xale yooyu tey ñu ngi ñaan euh, pour président de la République jël leen yóbbu leen ci seeni mausolée bàyyi mm-hmm. parce que loolu mën na nekk parce que aussi bu fekkee ne da nga nekk xale boo xam ne bi amagoo deux ans wala wala wala wala un am ñu ne la sa bàyyikat liggéeyal na réew mi ba wàcc liggéey ci extérieur boo demee ba màgg war ngaa sañ a laaj li nga xam ne sa baay daf ko liggéey. Mm-hmm. war ngaa sañ it ne yóbbu leen ma fi sama baay nekk ma ma ma ma mm-hmm. xam fan la. Mm-hmm. loolu dafa am solo te loolu vraiment. président de la république ñu ngi ko ci interpellé waat pour mu xalaat ci loolu. Mhm. parce que xam nga ñun dañuy gis lu ne. dañuy gis ay pipi de la nation dañuy gis ay yoo xam ne daal kenn xamul lan la. ay batalo joolaa ñu fay leen fayati leen am na yoo xam ne sax bëgguma ciy dugg. Ah, waaw waaw mais mais quand même ñoom am na loo xam ne li jot nañ ko gi gis mm. nañ fi sax ay coupe d'Afrique yoo xam ne da ñëw ñu lay jox kër di la jox ay kii <laughs> on a vu le militaire. Mm-hmm. dafa nekk ci naaj bi. Mm-hmm. gars yi nekk ci kër gi. Mm-hmm. chaque jour ñu ñu ñu wax fii sunu sunu sunu sunu man man demoon naa ba samay doom xamuñu ma sax. parce que. tout le temps tout le ñu ngi ci àll bi. bu ñu jógee fii ñu nga fële bu ñu jógee fii ñu nga fële jusqu'à jusqu'à ba kaña xam nga loolu métti na méttiwaay boo xam ne bii. loolu kenn gënu ko xam nag les autorités parce que xam nañ ko ñoom bu ñu nekkee tey à l'aise mais parce que euh, am na am na fu ñu leen nekkal donc loolu daal mooy li nga xam ne li par exemple euh, doon naa ko wax ci veuve yi ak euh, orphelin yi bu ñu sañoon dem ci fi nga xam ne fa la ñu denc seen waajur dem ziyaare ji leen parce que xale yi xamuñu seen waajur te bëgg nañu xam fan la ñu denc seen waajur. Mhm. loolu c'est le premier point. Mhm. li nga xam ne lii aussi moom moo ci nekk mooy que les quatre cent deux survivants yi nga xam ne ñu ngi fi. Mhm. ñu ngi laaj seen i indemnité te bëgg nañu président de la république gëstuñu ci loolu fay ñu li nga xam ne moom mooy sunu àq ak sunu yelleef. parce que lépp lu ñu def ci réew mi nag te àq yi nekk topp gaa yi mais réew mi du dem de. loolu moom foog ñu waxante ko. parce que ñun ce naa a fait li ñu dugal fii ci réew mi. Mm-hmm. xam nañ ko parce que c'est pas pour euh, frustrer qui que ce mais y a de ces bataillons yoo xam bataillons yoo xam ne ñu ngi ci réew mi ñun ñoo ko ñun ñoo ko équipé. Mm-hmm. ñun armement bi ñu dugal ci Sénégal armement musu fi dugg ci ci Sénégal gi. Mm-hmm. des nouvelles armes américaines ak des chars de combat avec des euh, euh, euh ambulances des médicaments tout ça dañ ko dugal ci réew mi. valeur bi mët na ay milliards et des milliards mais pourquoi ñooñu liggéey liggéey boobu tey ñu ñëw toog ñu leen di soofantal. Mm-hmm. loolu mais mais Abdoulaye yéen hmm? waxoo waa c'est vrai mais waxoo ma exactement naka ngeen fas yéenee def à part point de presse bi. wala yenn négociation yi. est-ce que da ngeen di organiser ay marches euh, wala da ngeen def grève de la fin parce que parfois euh, lan lan ngeen fas yéenee def. carrément pour état pas ñu leen di woo di leen defal ngeen demaat toog mais fay leen seen xaalis. waaw waaw mais xam nga ñun organiser nañ fi mars le 10 euh, décembre passé. Hmm. ba léegi bu 98. donc actuellement nii ñu ngi préparer journée de prière pour les pour les quatre vingt quatre vingt treize morts. Mhm. chaque année dañ koy def ci euh, grande mosquée. Mhm. ñu ngi ñu ngi koy préparer. te loolu état bi ils mhm. seront invités les ambassades Koweït ak Arabie Saoudite daañu leen invité comme nañ ko daan defee tout le temps donc euh, d'ici là xëy na dina ñu amaat yeneen waxtaan yoo xam ne dañ koy def seen biir pour gën a xamaat naka la ñuy taxawee. Mhm. parce que aussi ñun xam nga xam nañu naka la ñuy euh, naka la ñuy euh, euh, defee safaan. Mhm. mais loolu du sunu ay intention. wala tolloogu leen foofu tollooguñu foofu au fait. a ngi xaar ba ci kanam. toll tollooguñu foofu. Mhm. de toute façon man ñun loolu loolu la ñuy wax tollooguñu foofu waaye lii lii lii lii weesu moom. weesu na gannaaw dee comme ni ñu koy waxee. parce que xam nga nga jur sa doom mu doon liir tey dem ba takk jabar. wala dem ba màgg. xamul fu ñu denc bàyyam muy orphelin ak orpheline yi. Mm-hmm. loolu vraiment président de la république war na ci jóg. Mm-hmm. rawatina nag combattant yi nga xam ne tey am na ñoo xam ne ñi c'est des malades couchés ñu ngi tëdd seen lal mënuñu jóg. Mm-hmm. parce sëkkeelu guerre bi la. loolu vraiment war nañu mën a xam naka lañ koy résoudre. donc les indemnités moom dañ koy laaj ba keroog ñuy jeex. xaw ma nag. ci yan anam la ñuy defaat pour pour demander ko. mais dangeen ko laaj. mais dañ koy laaj. ça très sûr. voilà ñu gis beneen ponk boo xamante ni ça touche euh, l'actualité euh, ci xeex wàllum terrorisme gis nañ président Macky Sall ne euh, am na projet de loi bu jëm ci wàllum sécurité intérieure yow en tant que kii naka nga gisee yow mi nga xam yaa ngi ci biir naka nga gisee projet de loi boobu ak xeex wàllum terrorisme ak tamit insécurité bi am ci réew mi. waaw xam nga kooku du ma ne maa ngi ci biir parce que man nekkatuma ci biir. waaw nekkatuma ci biir mais peut être. mais mais mais de tout le temps sécurité moom mm-hmm. franchement. Mm-hmm. Euh, mooy euh, li ma wax sànq rek daanaka laal naa ko mais exactement waxuma waxu sécurité. Mm-hmm. xam nga bu la kii nekkalee ci naaj bi nga nekk ci kër gi. Mm-hmm. déjà sécurité ngi noonu. Mm-hmm. parce que déjà sécurité. mooy ki nga xam ne kii xam na ne mën na mourir pour sa patrie. Ah, ki nga xam ne kii xam na ne bu dee taxawee il ne recule pas. kooku mu ngi ci frontières yi moo nekk ci àll bi moo nekk partout ailleurs. pour que euh, la population civile quand nekk ci jàmm. boo demoon tey ci frontières yi di nga gis ni soldats yi ñu ngi liggéey liggéey bu mucc ayib. Mm-hmm. parce que loolu moom yàlla dafa ñu ko mooñaale. parce que mm-hmm. dañu on a pour ça. te ñun ñoo porté wu volontaire pour dem ci armée bi. Hmm. parce que armée. mais su ma déggee maanaam dañ leen war a mettre dans de bonnes conditions. dans des bonnes conditions très bonnes conditions. parce que gis nga je rappelle que. Hmm. boo xoolee armée li ci gën a graaw mooy que gis nga am na benn benn kayit goo xam ne papier vert lañ koy wooyee. Hmm. gis nga boo duggee armée li ñu lay jëkk a wax mooy kayit gi ngay jëkk a personne à prévenir en cas de mort lañ ci def. sa veut dire que yow. donc fii ngay dugg ay risque rek la. Mhm. maanaam tout le temps mën nga ñàkk sa bakkan tout le temps mën nga ñàkk sa bakkan. Mhm. donc nga ne way sama papa wala sama yaay wala sama mag wala sama rak. Mhm. donc ça veut dire que donc yow boo ci xësi boo ko xësee ba signé mooy ko dugg nga. <laughs> ni rubba comme comme ni ko wolof yi di waxee. donc te loolu na la wóor ni ku ko signé di nga dem bango boo demee bango daañu la former wala nga dem école grandes écoles ou nga dem foo mënti dem. dinañ la former te formation boobu ñu lay former. dina tax nga am taxawaay bu mucc ayib ci réew mi ba moo lay pousser ci kaw ngay wax ni man kat mhm. ah euh, on peut me mais on ne on nous tue mais on pas voilà donc xam nga loolu mhm. euh, mbir la moo xam ne mii euh, yëfu góor la daal lay wax mhm. donc daal man li may waxaat mooy li nga xam ne contingent wu guerre golf dugal na ko ci réew mi ci alal dugal ko ci matériel. Mm-hmm. dugal ko ci euh, koom-koom ak perte yi nga xam ne moom lañu am ak euh, les nu ñu koy waxte maanaam maanaam maanaam séquelles yi topp euh, combattant yi. Mm-hmm. loolu armée état lañ koy imputer. Mm-hmm. même buñ ko été même buñ leen ko imputer wul ñun laajatuñu sax ñoom lu ñu war a jox ñoom. mais liñ leen jox pour ñu jox ñu ko mais nañ leen ko jox c'est ça le problème voilà ayca ñu tëj kile di Mayekor euh, Diouf gis nañ ni tamit sànq yaa ngi jàmbat euh, problème emploi des jeunes hmm. mais gis nañ ni ci jamono ji euh, yaa ngi gis dund gi mi ngi gën a cher yokk nañ courant bi nee nañ sax dañuy yokk impôts yi suñu yokkee impôts yi pratiquement denrées yi dañuy yokk yow jàngat nga am ci loolu ci dëkk boo xamante ni nit yi waxuma sax ndaw mais nit yi sax amuñ xëy mais dund gi ñu ngi koy daal di yokk surtout ci deuxième mandat bu président Sall. waaw jërëjëf Ndeye Comba mhm. loolu véritablement sama jàngat rek mooy. Mhm. jàmbatu républicain par rapport à la situation nationale. mënoo mhm. euh, nekk ci réew. Euh, gis li nit yi dund. li borom kër yi di dund. véritablement yokk su amee rek. sa bopp sa bopp xool ko sa poche. bu njëkk. njëkkeel sa poche ba pare nga xam ne véritablement li ngay revenu yi ngay am ak euh, li ngay dépensé. su yokkoo rek foo jëm. Mm-hmm. waxatuma la ki nga xam ne amu ko. Mm-hmm. donc véritablement suñu sañoon. état bi gën a góorgóorlu. Mhm. gën a subventionné également pour que population bi xaw a am. Uh, tuuti dal. Mhm. Euh, ci seen ci seen nelaw. parce ah, que ah gëmuñ ko de parce que ñu ngi gën a yokk. waaw moom ñu ngi yokk courant nit ñi waxatuñ ñuy ñëw di laal denrée yi. loolu la loolu la loolu laa wax ni bi nag. Mhm. courant bi. yokkute courant bi. je pense que su fekkee ne ñoom. yéen bokkoo leen ci collectif ñoo lànk. déedéet bokk fële ca fële ca ca Foundiougne non ah commencé na am ay Kaolack ci région yi euh, ainsi de suite mais ñun moom bokkuñu suñu collectif mooy euh, véritablement euh, la plateforme départementale pour la défense des intérêts de Foundiougne non ci bi nga xam ne waaw non bi xam ne plateforme bi nga xam ne tey yokkum courant non ñun lu ñuy xeex parce que yokkum courant ñëpp la laal d'accord naa mais ñun lu ñuy xeex suñu ko amee mhm. suñu ko amee dans dans le département de Foundiougne je pense que waa Sénélec Eh, explication bu ñu joxee ne dañoo bëgg ñëpp am courant. Mhm. su fekkee ne loolu la. Mhm. c'est officiel que c'est ñun on est pour. Mhm. su ko defee aussi village yi nga xam ne dans toutes les communes ah, dans toutes les dix-sept collectivités locales que compose le département de Foundiougne yu ci gën a bëri amuñu courant je pense que su fekkee ne politique boobu la état jël en tout cas su ñëwee ba ñu gis ko véritablement ñun dinañ ko défendre parce que xam nañu ne euh, euh, ville yi kese. du Sénégal. Ah, Sénégal ke fépp ci la waaw mais mais xam réew mi xam na ko parce que ba mu bëggee euh, ñu fal ko dugg na ci gox goxaat yeeg dem di dugg ci ay néegi ñax di segg di dugg ci ay néegi ñax voilà euh, donc c'est pour vous dire que donc ci réew mi lañ bokk donc kon nag réew mi nag ñëpp dañoo war a jot ci yooyu mhm. mais su fekkee ne lépp euh, fii la des mhm. je pense que village yi dañuy gën a métti ñun yokku yokkute mu amul benn sens mhm. amul benn intérêt bu mu amal la population voilà ñu bàyyi la nga tàggatoog auditeurs yi lancer sa dernier message voilà émission bi nag dafa xaw a gàtt. dafa gàtt trop par rapport à à l'attente. véritablement wala wala waaw parce que lu ma bëgg a xam lu ma bëgg a wax mooy. Mm-hmm. Mm-hmm. Euh, suñu îles yi. Mm-hmm. les îles du Saloum. en tout cas soxla nañu ay dotation euh, en bateau taxi. parce que seen transport dafa dafa métti. il faut ñu il faut véritablement état bi dimbali leen ci en bateau taxi yi nga xam dañuy mën a dem. di ñëw ci véritablement ci jàmm. extension également du réseau électrique mhm. comme ni ma doon wax sànq village yi am courant dans toutes les dix-sept collectivités locales mhm. ay lycée moderne également soxla nañu ko am na ay communes yoo xam ne amuñu lycée loolu loolu rafetul mhm. rafetul ci image eau potable également nit ñi di sonn courant euh, moteur yi suñu paane groupe yi suñu ñuy dem ay set huit kilomètres maire yi di rooti foofu loolu métti na. Mhm. te dans un Sénégal de deux mille dix neuf mhm. pas du tout normal. Mhm. donc loolu daal la amoon li ma ci wax di gërëm waa département Foundiougne yëpp. yaa di gërëm toute la jeunesse du département di <laughs> gërëm également la plateforme. di wax tous les jeunes du département que ñu gën a góorgóorlu. Euh, intégrer la plateforme parce que intérêt département bi kese moo ci nekk. voilà véritablement di gërëm également waa popula waa commune Toubacouta mënu ma wax te tudduma leen. voilà commune Toubacouta cogère communale bu Toubacouta toute la jeunesse de Toubacouta maa ngi leen di gërëm di leen sant. ayca ñu bàyyi Abdoulaye Diouf tamit tàggatoo ak auditeurs yi lancer dernier message am. voilà donc ñun du ñu def dara lu dul di leen remercier waan yéen waa euh, Rewmi FM. Mhm. donc euh, di sant yàlla bu baax di gërëm nag collectif euh, de anciens combattants de la guerre du Golfe mm-hmm. ak veuves yi ak orphelins yi mm-hmm. ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo am kóolute ci man ba tax ñu jiital ma ci combat bi mm-hmm. combat bi nag moom comme ni ma koy waxee rek dan ci sant yàlla bu wér te di wax ni président de la république ñu ngi xaar nga wooñu comme niñ koy waxee tout le temps ci rajo yeeg télévision yi. Mhm. Euh, salle des ñu wax la li nga xam ne li par exemple moom moo. yéen président ci boppam ngeen bëgg mu dalal leen. président la ñu bëgg mu dalal ñu parce que moom mooy chef suprême des armées. Mhm. ba pare bu ñu bu loolu weesoo dañuy am ngërëm. Mhm. goo xam ne gii. du doy nag ci Mame Matar Gueye bu Jamra parce que ñun aussi nous sommes des militaires. ba pare yàlla dafa dogal ñun ñoo bu ma yeboon ne ñun ñoo yor Sénégal. comme loolu am na nag te gis nañu moom muy liggéey liggéey bu mucc ayib ci réew mi. ak mhm. doomu réew mi. Mhm. parce que Mame Matar Gueye man je damay toog ba mu yàgg ma kii kañ lay nelaw. kañ lay voilà kañ lay noppalu. Mhm. c'est quelqu'un boo xam ne bi day veillé ci réew mi. te lépp lu fi nar a yàqu mu taxaw ci xar ci tànku tubéyam ñun tey bu ñu amee bii. Euh, patience. Mhm. mais vraiment nañu sant yàlla bu baax ak Mame Matar Gueye. voilà moom du ñu jóge ci du ñu conseiller di ñu wax taxaw leen nii def leen nii def leen ndànk def leen lii def leen lii président il de bonne foi nangam nangam ak yu demee noonu. donc moom amal nañ ko ngërëm. Mhm. parce ki nga xam ne kii moom mooy moo lay moo lay tax nga am ay yenn retenues yi dañuy sant yàlla bu baax di ñaan yàlla fay ko. bàyyi koog njabootam. Hmm. ba li mu bëgg ci réew mi mu def ko. amiin mi ngi noonu asalaamaaleykum ñu koy euh, remercier bu baax a baax Abdoulaye Diouf nekk secretaire général bu collectif euh, des jàmbaar du golfe ak kile di Mayekor Diouf également euh, nekk président bu commission scientifique plateforme départementale pour la défense des intérêts de Foundiougne ñu leen di remercier bu baax a baax di remercier suñu auditeurs yi ànd ak ñun chaque samedi de heures à wàllum technique bi Léon Paul Mendy ci wàllum réalisation ba samedi prochain incha allah ci beneen émission beneen thème ak yeneen invité jaa jëf